bokk jullit yu tedd yi ñuy seetaan ci àdduna bi yëpp ak ñi ñuy déglu ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara eh, di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha te di ko ñaanal suñu borom bàyyi ko fi yàgg lool te ànd ko wér mboolem yéen yi mu am ci liggéeyal ko lislaam yàlla suñu borom jàppale ko ci mu def ko lu kaw njortam te ànd ko ak taalibe yëpp eh, bu ngeen gisee nag tey ci jataay bu màgg bu sell bi. Euh, xam ngeen ne am na luy mal si muy bisub sunu jàmbaar ja di jàmbaari jàmbaar yi di yaakaari Serigne Touba ja di sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bis bi nga xamee ne ci lañ koy fàttaliku saa yu jubsee si di Mbacké mi nga xam ne moo ko fi nekkal ñu ngi koy ñaanal moom itam li ñu ñaanal Cheikh Mountakha te mooy mu yàgg fi lool te ànd ko wér ba mboolem lu mu yéene liggéeyee ci kër baayam ak kër maamam. yàlla suñu borom jàppale ko ci mu def ci lu kaw njortam te ànd ko ak i rakkam ak taalibe yëpp euh, ci ndigalam la ñëwee fii di commission culturelle bi nga xam ne moom la dénk ñuy saytu euh, njàngalam si Abdou Lahad ak yi waxtaanam yi nga xam ne diirub jamono euh, suñu borom dénk ko ci gannaaw Sëñ Tuubaa lépp loo xamante ne bii ay jaar-jaaram la woon. sëriñ bi dénk leen saa yu magal gi jubsee ñu koy fàttali jullit ñi ak itam nag di dem ci e, kër yi nga xam ne ñoo àndoon ak way juróomu tedd wa Cheikhuna si Ahmadul Xadim doon liggéey liggéey bi e, moom it mu ñëw fàttali ko ci seen gannaaw mu digal ñu ñu dem ci kër yooyu ngir e, jëflante bu rafet bi nga xam ne amoon nañ ko ak Cheikh ñu mën koo fàttali njaboot gi mën koo fàttali jullit yëpp. Euh, loolu moo tax nag tey yi ñu teew fi euh, wuutu fi ñi nga xam ne ñoom lañu ñu seqal commission bi di Cheikh Abdou Lahad Bousso Mokhtar Cheikh Abdou Lahad Bousso Thierno Cheikh Abdou Lahad Bousso Ka euh, waaye nag ñu fekk si fi kenn koo xam ne ci commission bi ku ci am yitte la am ci pas-pas am ci njàmbaar loolu rek di firnde diggante Cheikh Abdou ak kër gii di kër Cheikh Mokhtar Bintaloo Euh, muy euh, ak docteur Cheikh Abdou Lahad Lo mi nga xam na kenn la ci commission bi ñu ñëw fii ci kër gii di kër Cheikh Makhtar Binta Lo ci kanamu njabootam ñi mu njaboota ñëpp tey mën naa ne tey teew nañ fii ku fi teewul am na ku la fi teewal euh, ñëw nag ci kanamu Serigne Cheikh Makhtar Lo ibnu Cheikh Mahmoudan Lo ibnu Cheikh Makhtar Binta Lo mu ànd ak bokkam yu tedd yi mu àndal di sëriñ Khalifa Lo ibnu Cheikh Mouhamed Lo ibnu Cheikh Makhtar Bint Lo incha allah moom da ngeen dégg sax kàddoom moom mooy ubbil sëñ bi eh, mu soog a jël kàddu gi ak itam ñu fekk fi it sëriñ Mamor Lo doomi Cheikh Mouhamed Lo doomi Cheikh Makhtar Bint Lo moom di kenn ci njabootu Cheikh Makhtar ñu fekk fi sëriñ Mouhamed Mourtala ibnu Cheikh Mouhamed Lo ibnu Cheikh Makhtar Binte Lo moom it yaakaar naa kenn du ko laajte fekk fiit it sëriñ Cheikh Makhtar Lo ibnu Cheikh Abdoul Khadir Lo ibnu Cheikh fekk fiit it sëriñ loo Lo ibnu Cheikh Hamidun Lo defe naa ne sëriñ Hamidun moom itam ñu bari xam nañ ko rawatina donga daara yi eh, ci kaamil bu tedd bi nga xam ne daanaka moo gën a tasaare aw turam yàlla na suñu borom yokk ay leeram ak mboolem njaboot gi yëpp eh, fekk fii itam Mouhamed Mokhtar Lo ibnu Cheikh Mouhamadan ibnu Cheikh Mokhtar Binta Lo fekk fi it sëriñ Abdou Lahad Lo ibnu Cheikh Mouhamed Lo ibnu Cheikh Mokhtar Binta Lo fekk fi it sëriñ Cheikh Mokhtar Lo ibnu Cheikh Abdoul Jamil ibnu Cheikh Mokhtar Binta Lo ak sëriñ Abdou Lahad Lo ibnu Cheikh Mouhamadan Lo ibnu Cheikh Mokhtar Binta Lo ak sëriñ Abdou Lahad Lo ibnu Cheikh Moustapha Lo ibnu Cheikh Mouhamadan ibnu Cheikh Mokhtar Binta Lo kon yaakaar naa ne loolu rek firnde na la kër gi ñu ñëw. Euh, am nañu ak jaxasoo gu rafet ak Cheikh Abdou Lahad te lii rek firndeel na ko sama turandoo yii ma fekk macha allah ak yiñ ñu fekkut loolu rek firndeel na diggante Cheikh Abdou ak kër Cheikh Makhtar Binta Lo kon euh, li ñuy jëkke euh, mooy jox seen xalifa Lo ibnu Cheikh Mahamadou Lo ibnu Cheikh moom la jox mu ubbil sëñ bi ku ne xam ne ñu ngi waajal. bisu Cheikh Abdoul Ahad bi mu feeñee jamono muy ñaar fukki fan ñett ci weeru kor wi euh, te ren mu war a dëppoo ak euh, dibéer le 14 mai bi ñu ne euh, incha allahu taala ñu di ko waajal jullit yëpp di ko waajal dafa bokk ci li ñu koy waajale nag mooy fàttaliku ay jaar-jaaram ay jëfam yu rafet ndax ku ne xam na ne ba ci yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee jamono suñu borom daf ko fàttali yonent yi nga xam ne ñoo ko fi jiit woon seen jikko yu tedd ya ba noppi ne ko nag fa bi hudaahum iqtadih seen jub googu roy ci kon nag yaakaar naa ne gannaaw yonent bi la ñuy royloo ñi nga xam ne moom la yàlla tànn ko ci seen kanam te teewut ñu royloo ko asamaan nag ñun ñi nga xam ne ay e, taalibe lañ bu ñu xooloo fàttali ñu suñu kilifa yooyu defe naa lu yàlla la kon ñu ngi jox kàddu gi sëñ Xalifa mu ubbil sëriñ e, Cheikh Makhtar. su ko defee ñu soog a ñëw ci euh, sëñ bi aouzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah muhammad salatu wasalam donc sëriñ Tuuba jërëjëf sëriñ Tuuba euh, mbokk yi dama mbokk yi man wax léegi dafa maa xaw a gërëm loo ndax iftitaax bi mu def daanaka doy na lépp bi ngeen jógee ñëw fii jëm si kër sëñ Mouhamadou Lo kenn ku ne xam diggante sëñ Mouhamadou Lo ak sëñ Abdoulaye Mbacké kenn ku ne xam fam daa jaar kenn ku ñu ci ñi ne ñu nga tudd bari na ñoo xam ne toog nañ jotaayu sëñ Abdoulaye ak sëñ Mouhamadou toog nañ jotaayu sëñ Abdoulaye ak sëñ Malo Matar sama baay moo jiitu kon loolu doy na sëkk la waral ñi nga lim ay Abdul Ahad bokk ci Abdoulaye da ngi Abdoulaye da ngi kooku ma la xam ne sëñ ci bi moom bërëb la boo xam ne bërëb kon nag yan na ko yàlla doy leer ci barke sëñ Tuubaa tas ñu barkeem wax ci moom nag euh, dafa jafe lool nag am na yoo xam ne manis na ko am na yoo xam ne di su ko wax ndax euh, suñu wax rek ay gi day nuru dañuy woote dañuy wootee ci waaye nag euh, marja am nañ ko boole nañ ko joxo euh, Cheikh Matar lu mu ci wax rek donte ñetti baat la it na sëkk ci nun waaye nag suñu ablaat ci nun moom mun noo wax lépp moom ndax fa mu jaar suñuy waajur sama waajur fa mu jaar moom jaar fa ko sëñ Mahmoudin Lo lépp rek nga moom muy muy muy muy muy muy muy muy bëgg sëñ Makhtar bind kooku moo tax dana dana jafe loolu ci nu wax léppam jaar fekk nañ ci lu bari fekk nañ ci lu bari nag waaye nag jëru ko mën nañu bàyyi rek benn marjan suñ am la daal li ma ñu wax mooy marjan kul murid delluwaay képp bépp murid ci magam ji baax ji Cheikh Abdoulaye Cheikh Mouhamadou Moustapha soo fa jógee ñëw ci suñu iblaat ah na jaar-jaar yooyu doon sikk mooy lépp suñu iblaat suñu iblaat lépp kuy mor rek suñu iblaat ngay roy kuy mor rek suñu iblaat ngay roy su dee aw fit moom nga ci roy sa leneen moom nga ci roy te lépp sëriñ Tuubaa rek nag bëgg sëriñ Tuubaa rek nag kon nag loolu su ngeen ñëw fii di laaj des nañ ci wax liñ ciy wax nag noo ngi koy bàyyeeg euh, Cheikh Matar euh, mu wax ci rek la nga xam ne moom la ci lu mu ci waxee nag daf ci lal rek waaye nag mënut a wax lépp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërë ngeen jëf. ok jërëjëf sëriñ Khalifa Lo ci kàddu yu am solo yi nga xam ne ubbee na ko jataay bi te mel na ne daanaka suñ ci yemoo itam li mu ishaara doy na sëkk ñu xam diggante. kër Cheikh Abdoul Maxtaar waaye rawatina nag diggante kër Cheikh ak euh, sëriñ Mouhamadou Lo moom mu teewal fi xalifaam di magam teewal fi njaboot gi yëpp itam waaw macha allah euh, ñi ngi ànd ci euh, jataay bi sëriñ seexu naa Jaxate nga xam ne kenn la ci njiital ñi nga xam ne sëriñ Sidi dénk na leen ay ci wàllu màggal gi ñu koy taxaw ci jamono yëpp nekkoon tarbiya Cheikh Abdoul Euh, suñ seexu naa kon ñu ngi lay sant bu baax ci teewaay bi kon li ñu def rek mooy jox kàddu gi sëriñ Seex Maxtaar Lo mu ñëwal ñu nag ci diggante sëriñ Maxtaar Binta euh, ak Seex Abdul waaye bu nappee mu ñëwal ñu ci diggante sëriñ Mouhamadou Lo ak Seex Abdul Ahad aoudu billahi min asheytaan rajim bismillahi ala rasulillah sayidina wa maulana muhammad wa alihi wa sahbihi wa qadimihi sëñ Abdul Ahad ñoo ngi leen di delloo ab nuyoo di wax marhaban bi ci seen kër ndik ngeen ci atub sëñ Mahmoudan Lo waaye mën naa la wax na la man dikk ngeen ci atub sëñ Abdul Ahad kër gi euh, kii doon borom di sëñ Mahmoudan Lo euh, sëñ Abdou Lahat da ko da ko ràngoon euh, benn yoon benn ràng ba tax na xamatul woon amatul woon amatul woon ab jotaay ci këram muy Touba gi muy Touba Belel te lu ci ëpp fa masa nekk ak moom maa nga fa nekk ak moom di ko di ko di ko di ko dund gannaaw bu leen nuyoo ci turu Sëñ Fallu mi nga xam ne mooy xalifa Sëñ Maxtaar Binta li sëriñ xalifa ubbee doy na sëkk ak ubbi doy na sëkk ak waxtaan eh, te li nga présenté ci eh, ñi fi teew eh, di turandoo Sëriñ Abdou Lahad ci kër gi rek am na fi ay Abdou Lahad yoo xayma teewuñu kon dana dana day tegtal ne Sëriñ Abdou Lahad joxoon na ko bopp. waaye moom itam jub na ko dellu na ko léppam euh, diggante sëñ Maxtaar ak sëñ Abdul Ahad moom euh, daanaka wax mën na caa bañ a bari ndax euh, moom sëñ Abdul Ahad ci boppam dafa wax ne diggante bi ba mag ñi ànd ak sëriñ bi booba dama dama dama ndawe ba tax xawma ci lu bari waaye bi bi ma dikkee te xam ne sama euh, sama dund la ma cee jëriñ ci ci sëriñ bi laa koy laa koy laa ko laa ko mën a jëriñoo ma topp ñi nga xam ne euh, ñoo àndoon ak sëriñ bi hmm. ñu ma ci ñu ma ci gis dileen laaj di laaj ku ne ma laaj la diggante kooku ak sëriñ bi ba ba ñooña jeex itam ma topp seenu njaboot di laaj ba may laaj ba laaj kilifa yi di kenn ku ci na nga wax nga ma ci ci diggante sëriñ bi ak sëriñ Maxtaar loo xam ne waxu waxuma ko waxuma ko ci keneen moo tax ma def leen nii ma leen def loolu moom loolu loolu wax sëñ Mahmoudou ci Touba Belel kon nag euh, loole euh, su ngeen dikkee tey euh, di ci laaj yàlla te kon lamiñ yu mën a tontu li ngeen may laaj waaye xam ngaa ngi fi waaye nag lamiñ yooyu gàntal sëñ Abdou Lahad dama wax ne adda al daawat al qadimiya al kalima waaw loolu rek la fi noonu ne loole nag dama ciy jël Touba Belel euh, gi nga xam ne ba mu ko sancee euh, di fa dund dafa dafa dafa réunir mboolem doomi kilifa yi di leen tëj foofe tëj ga mu tëj gi mu leen fa tëji woon itam leen fa tëji wut tëri leen rek ñuy lekk aka naan da leen da leen téye woon ñuy ñuy jàng ñuy jàng ñuy jàng taarixu sëriñ bi nañ koy jàngee da dañ koy def tabaadul ci seen diggante doomi seex am na néeg boo xam ne spécialement ca Tuwabel soo yaakaar naa ba tey jii soo fa demee soo ne néeg sëñ Mahmoudan Lo dañ la ne néeg baa nga ne néeg boobee mboolem kilifa kilifa gu fu ma sa dikk ne na ko yóbbu ko ci néeg sëñ Mahmoudan Lo ñu uh, fa la ñuy fa fa la ñuy nekk ku dul suñu am surtout ak suñu ay dara ñoom ci biir lañu amoon waaye nag yeneen kilifa ku fa dikk rek yób yóbbul yóbbul nekk suñu Mahmoudan loo kon loolu moom kii la kilifa yi nag di di di jàngat nekkeenu sëriñ bi nañ doon dox ak seeni nam doon dox ak seeni wéjur lañ ca lañ ca xam lañ ca takk li kii loole boole kook di leen liggéeyloo ci ci ci téere lu mel ne sëñ Mahmoudan mi da koo eh, taklifoon ci wàllu tasxeex eh, topp toppi téere bari na fi eh, jimb jimblang boo xam ne sëñ Mahmoudan moo ko topp foofee ci tubaabel waaw loolu ma teewe ko waaw um, loolee nag eh, kilifa yi bari nañ bari boo xam ne dumaleen ma mën a lim waaye dana ci tudd ku mel ne sëñ Mor Jooja Fall nga xam ne sëñ Mahmoudan xëyee ubbi téere bi ki mboolem majmuwaat yi quraan almuqayyada bi xëyr bi xëyr ayatul quraan ya yooyu yëpp sëñ Mamadou moo ko topp foofee ca Tuubaa Belal su xëyee di di di eh, ubbi téere bi sëñ Mor Jooja Fall toog fee lu lu mu àgg ba di ko yéem sëñ Mor Jooja yàlla daa dogal baat ba neex mu am fasaaxa dégg arab loolu itam nag lu siñ ma fa ci téere bi lañuy ñuy sëgg lu lu mu wax sëñ Mor jaaju jooju fal daal di madda yëkkati maa man ma toogee ne di di xiim ñuy wax jotaay murit ri xiim ak riim man ma ma ah, xiim man maay xiim sëñ Mor jaaju mooy riim waaw am na diir bu yàgg ma ànd koog sëñ Mahmoudan foofee ca Touba ak eh, ku mel ne sëñ sëñ sëñ Modou sëñ Modou Khadi si waaw sëñ eh, Baye Cheikh Fatako ñoo ñëpp ñoo daal daj daj ci néeg bi eh, néeg ba benn lal moo ci nekkoon kenn ko fa dikk jaar ci lal bi ku dul Baye Fallou Matar Anta ba ba ba Fallou moom moom bu dikkee rek moom jaaxaan ci lal bi waaw waaye kilifa yi rek war war lal kon loolee eh, gis naa ko foofee ci kii bi ah eh, ak sëñ Iblaat nag lu dul eh, liggéeyloo googu nga ko doon liggéeyloo ci téer yi daa téye foofee fi Touba Belel fay nekk ñaari weer ñetti weer diggante Touba Belel ak ñoom ci ñël dix kilomètres la dañoo toog ba yàgg mu ne man de xuma ana Mahmoudan ma woon waaw ana Mahmoudan ma woon nee na sëñ Basiiru daf ma masa woo fa tu fa eh, ma gont si fa bi ma gont see eh, ci suba ñi yendu bu ci takkusaan man man daay suñ bi wax gu ma dara dina daal foofu sama kol laal tegoo daal dem suñ Basiru génn ci kappaar gi ma daal dikk rek daal toog moom nee na suñ bi xam na ne damay bëgg wax dara ma ne ah Mahmoudan ma ne ko ah, damaa bëggoon xam ci sama bopp dar de ma ne xalaas Mahmoudan xanaa dangaa bëgg génn ci taal bi ma ne ko ah, déedéet yàlla tere waaw ah, man oh. xaa xamoo ne Mahmoudou xaa xamoo ne du dara lu may boobu boobu ubbu képp ne kon naa ne naa ne képp na naa ne naa ne kooti sa xam ne nekk fii sama kër gi nekk nii may toog fii diirub ñetti weer du xam sama bunt kër ba fu mu toll loole itam sëñ Tuubaa lees xamut lu mu doon waaw suñu blaat ni mu doon jëfante kilifa yi eh, yàlla eh, ni ma wax rek eh, ma waroon naa ko mën a détailler point par point waaye nag sama làmmiñ moo ma moo ma moo ma moo waaw kay de xam xam xam naa xam naa xam naa ca lu bari xam naa ca lu bari njabootu suñu Maxtaar suñu ublaat man ba ma koy xam ca 62 63 mu dikk Touba te booba tuddugul Touba Belel boobu xam suñu Fallou Ndiaye moo ko jox foofu ay tool mu mu koy bay si Baye Abdoul Khadir Baye Cheikh bii la defoon jëwriñi tund woowu yëpp mu mu mu doon mu nga xam ne moo daal soññeet tool bi te yaakaar na euh, sos euh, ñetti at ñeenti at la fa bay daal dellu bokki barga gannaaw gannaaw sëriñ Fallou nag la doog a dikk sanc Touba Belel ci ci ci ci ci lu wér waaw loo foofee yaakaar na euh, Cheikh mi rakam ji tudd Abdul Ahad 63 euh, 64 la la la la war a judd foofee kon kon kon kon kon loolu yàgg na ah, kër gi nag yaakaar naa li fi nekk ci euh, ku ko doon jox jox njukkal euh, ci ci tur mel day mel ne bëggoon na ko jox jox jox gépp ndax doom ji mu am doom ji mu am am doom ju góor tudde na ko suñu ablaat waaw fii fii fii ci kër gi waaw tàmbale ci Abdou Salam mustafa Moustapha seere ngi ni Abdou Lahad ngi ni sama taaw Abdou Lahad la dafa génn Abdou Lahad mi muy muy muy muy doomam lim def ci lim def ci eh, ci doomu adama yi mu ne mu ne su ko mu ne ko benn benn da toog ba yàgg mu mbaar bi Ibra Jeng yor mu mu sarse ko lu doon ay ay ay xéwal ci nawet yoo xam na ni nawet nañ meloon ay sànqal ay ceeb mu indi ko foofee ci fa ñoom rek it ko suñ Mahmoudan ñu suñ lii de moom ñemewuma ko ñemewuma ko xaaral dal di daal cee topp mu dem ko suñ Mahmoudan lii ma lay defal li lu tuuti la ci na xam ne li may defal njabootu ñi ma bokk suñ Tuubaa lu ma def ci ñoom rek war naa ko def ci njabootu suñ Maxtaar Binta lii lii la lu ma lu ma fa indi nañ ko lekk waaw ah, lu ma war a jox njabootu Sëriñ Tuubaa gi kon nag loole eh, lenn la ci lu ma alatiku ci moom waaw eh, waxoon na ko bis ne ko man de Sëriñ Maxtaar bañ ma waxee ne ba dafa ba ba mu wàccee ñu ñu jox ko soxna sëriñ bi nekk gànnaar dafa gan gi daa wàcc mu daal aw yoonu gànnaar di fekk sëriñ ba ba ba ba daata ndil si soxna soose am na gone yàgg na toog ab diir mu ne ko ah, ah, sëñ Mamadou nee ma ne ko soxna soose na mooy sama ndey ma ne loole ah loolu loolu sëñ Mahmoudou xaw ma ko waaye ci laa xamee ne ci laa xamee pas-pas pas-pas bu sëñ Maxtaar Binte ba tax ba ba ba ma di ko ma di ko xeeñ xeeñ nga nag ci nii ma waxee rek la ko doon xeeñee te doon laaj kilifa la doon laaj kenn par kenn waaye kenn ku ci ne la nga ma wax ci sëñ Maxtaar Binte waxuma ko ci sa morom lu tax yéen ñi ma jàpp leen lii ma leen jàppee ah te ku leen ku leen xamoon ku xamoon euh, diggante sëñ Maxtaar Binta ak sëriñ bi dana am ci ci ci ci seenu njaboot comme comme taxawal li li li li sëñ Mamadou jërëjëf ci kaddu yu am solo yi nga xam ne génnee na ko fi te muy lu tuuti ci li nga xam ne si Abdoul Ahad sëq na ko ak njabootu sëñ Maxtaar Binta waaye rawatina nag. Euh, sëñ Mouhamadou Lo euh, euh, firnde yi dafa bari lool waaye taxawaay yu am solo yi ak kóolute yi ba di ko liggéeyloo ci wàllu xam-xam loolu defe naa ne dafa dellu cosaan rek ndax si Abdou Lahad dafa doon koo xam ne kenn ku nekk la man rek lalay def loo loolu moo taxoon mu xamoon kenn ku ne lay sa wàccuwaay ci sëriñ bi moo tax ku mel ne waa Kër Cheikh Makhtar bi ku ne xam na leen ci wàllu xam-xam ci démb. loolu moo tax itam moom bi mu ñëwee te liggéey bi gën a rëy ci ab liggéeyam muy xam-xam itam mu seet ñi nga xam ne yàlla nañ ko mu mu di ko def la kon loolu moo ko boole woon ak sëñ Mouhamadou loo waaye nga wax taxawaay yu am solo yi nga xam ne it euh, euh, doon na ko taxawu ci njaboot gi euh, loolu lépp itam lem si jublu rek mooy liggéeyal sëñ Touba ndax moom dafa jàppoon ne moo wutu sëñ Touba kon lépp lu war sëñ Touba ci njaboot gi rek moom la war ba tax la ko tàmbalee ci waa Barsaq rakki boppam yi di waa kër Sëñ Tuubaa yi ak ñi nga xam ne moom la fi magam yi bàyyi di ay doom ba ci seex su mag si moom jàppoon nañ ne lépp lu ci xew ci kenn ci ñoom rek moom warteefam la moo ko war a loolu moo moo moo moo waral li nga nettali ci ci digganteem ak sëñ Mouhamadou Lo ak ci njaboot gi mu doon ci taxawee noonu ba ku ci masaan tawar sax wala dara xew ku ci def sax mën naa am mu melal ndax moom la war wax bu ma kenn euh, bu ma ñooru bu leen ma ñooru ku ko masaan ñooru da lay mere la ko gën mooy lépp lu xew ci njaboot gi moom mu yenn ko euh, defe naa ne ci jamono yi mu feeñee jamono yi mu nekk ci ci xilaafa gi woo na am mag ne ko bëgg nga euh, gëstu njabootu Sëñ Tuubaa gi laajal ma kenn ku nekk li sëb dund li nga soxla ci at mi lépp ma xam ko kooku dem xool xool xool lim ba bari lool mu xaw ko ko néeg wax mu woolu keneen santaat ko loolu kooku ñëw wax ko loolu noonu la ko gàddoo woon ba kenn ku nekk ci ñoom li war ci yow moo ko daan taxawee am na bis ñu ne ki nga xam ne moo nekkoon ci magasin si Abdul Xaadir bi da woo ba mu ñëw mu xamal ko ne ko dund bi saa yu demee bay bëgg a jeex rek bul xaar ba mu jeex na nga ñëw wax ma ko xamal ko ne ko nag soo ko defee des ëllëg maa la warul sa àjjana ne ko it saa yoo accès bul wax dara taxawal fee ma seen la rek waaw taxawal fee ma seen rek ndax xam na ne njabootu sëriñ bi ñoom du ñëw mukk naa ko dara jeex na xalaatuñ ko ndax ni ni ni mu jàpp ne moom moo leen war a taxawu ñoom it noonu leen jàpp ne mooy seenum Sëriñ Tuubaa ñoo ko war a taxawu waaw waaye nag euh, ràññee gi noonu mu ko defee woon ci njabootu sëriñ bi noonu la ko defee woon ci ñi nga xam ne ñoo dundoon ak sëriñ bi it li nga waxit lu wér la bi mu ñëwee ta fekk euh, moom li mu yéene liggéeyal baayam ta fekk ko fi bam ci jamono booba euh, ci tuutaan la ci sahir dana dama fas yéene képp ku amante na sama jur rek ma dem laaj ko noonu la def wër mag ñëpp kenn ku ne mu laaj la ba xam ci yow li nekk ci sëñ loolu moo ko may tey lii mu réussir ci jamono ci ci gàtt jooju da ngay defe ne xëju ci ak dund waaye kon euh, macha allah euh, yaakaar naa ni mu seqe woon ak sëñ Mouhamadan ci ay taxawaay noonu la ko defee ci njaboot gi yëpp ba defe naa ne daan na xëy rek dañ benn bis mat ñeent fukki. wala ñaar fukki borom kër mu wutal leen ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay dendandoo la ci war lépp mu def ko ku ku faatu mooy la ci war moo koy def moom daal macha allah defe naa ne taxawaay yu mel noonu itam ñàkkut waaw ñàkkut loo ci mën a seere. suñ mbay mbay jaxat na ne ku ku laaj seere mën naa ci seere ndax man mii moom moo ma dencal waaw. moo moo moo dencal te yemul yemuliwu ko ci man Moustapha sama mag yaay kii moo moo ko jox sëñ Abdou Salaam sun mag umi jax sa mbokk moo ko jox hmm? kon loolu mbo mbooloo la jëmm ji wax na ma léegi lu ko sama ndey net li fii ci kër gi bi bi kër bi juddoo dafa ne man day dama géeje woon a tudde suñu Abdul Ahad doom yàlla dogal ñu dikk ne ko soxna bari am am na gone góor muy muy Abdul Ahad mi kon loole am am na na fi ay firnde yu yaatu am na fi ay firnde yu yaatu te may dencal jëmu jee lu lu sëñ Mahmoud yónni ci moom waaw daf daf ba mu ko ne la ma la ma ko woon ba mu da ko ne mu ana fekk moo ko yónni mu mu mu ne ko demal wàll suñ xalifa moo moo wooy suñ suñ mamor fekk yónni na suñ mamor kon nag loole eh, am na firnde ci kër gi eh, eh, yaakaar naa du du ñooña du fi ñooñu dong itam nag waaw kon lu mu daa defal njaboot njaboot yi gannaaw lu ci woon kër gi kër Sëñ Maxtaar dox na ci ay jéego yoo xam ne Euh, du yu benn benn yàllante kon ëblaat man koo tuddal boppam wala nii nga ko détaillé ma man koo ne détaillé itam loolee kun waaye nag euh, al ishaar <laughs> xam naa day def itam saa yu màggal gi jub si euh, dañuy tànn benn thème boo xam ne dana dëppoo li nga xam ne moom la ñu dund ci jamono ndax sa Abdou Lahad dafay mel ne dama jàpp ne jamono mënta andeeti loo xam ne waxu ci ba mu jëf ci moo tax saa yu ñu jubee màggal gi rek dañu xool waxtaan woo xam ne wala thème boo xamante ne bi euh, suñ ko jàngatee ci ak dundu si Abdou Lahad yaakaar naa saafara su bari dana mën a jur dana ci mën a juddoo loolu moo tax ci jamono ji ku ne xam na ne euh, réew mi xaw na lëcc xaw a jaxasoo Euh, soxla na ñu fàttalikuwaat mag ñi ci seenu dundin ba mën a delloosiwaat ndaw ñi mën a mën a fàttaliwaat seen mag ñi euh, ba tax ren dañoo jël jàmm ak xajoo euh, jàmm ak xajoo ndax gis nañ ne jamono ji soxla na bu baax ñu fàttaliku baax sëñ Tuubaa naka la jàngale woon jàmm ak xajoo waaye sëñ Abdul Ahad naka la ko jëmmale moom bi mu ñëwee ci lépp luy waral ak bennoo ci jullit ñi ci ci kilifa diine yi ci tariixa yi waaye ci réew mi yëpp loolu bëgg nañ sëñ Mouhamadou sa nga indil ñu ci loo xamante ne bii fàttaliku ne taxawoon na ci réew mi bañ kilifa yi yëpp mujjoon nekk benn euh, loolu ñu ngi ci sàkku ay kàddu. fàttaliku naa bis boo xam ne sëñ Abdou Lahad ah Aziz Sy yendu na fii euh, keroog ba yendoo ba boori tisbar sëñ Mourou Mamoun Niang moo dikk indi kayit wa ndax si bind maqiilu naa inda tuubal wa aydun lana min xel xel koo jàpp ci feelu waaye mun mun mu ko génneti kon bo bo boole ak booleem eh, mboolem jullit yi ndax eh, jul jul jullit yi la doon la doon la doon liggéeyal ci ci Sëriñ Tuubaa eh, mu tàmbale woon ko ca fa gën a sori penc penc mi ba ba ba ñëpp lo lo loolee xalas waaw kon loole rek doy na doy na am njàng ci ne am njàngale ci ne ab lëgéem boole boole bindeef yi mo mo mo mo moo doon aw sasam ok maa ngi nuyoo di jégalu bu baax te xam ne kaddu ndigal rek moo tax ma yëkkati waaye programme moom da am na muy doxee te ci sama wet kilifa la toog sama mag joom bokkal ndey bay kon bu waxee ba noppi rek amatuma kaddu yi may wax waaye sëñ kilifa mii nga xam ne moo toog di kilifa jotaay bi moo ma jox digalul uh, yëkkati ci kaddu kaddu yi nag kaddu yi yi ci jiitu mooy kaddu yi sant. sant mboole mbokk yi nga xam ne ñu ngi taxawal liggéey bi te kenn waruñ cee jiitu ñun ñun njabootu sëñ Makhtar Binta ñun njabootu sëñ Mahmoudan ndax melo yi ñuy waxtaan ci sëñ Abdou Lahad ko sëñ Cheikh Makhtar waxe sànq sëñ Abdou Lahad dafa eh, am melokaan yu mu yoroon seq ko sëñ Mahmoudan ci doxin yoo xam ne eh, sëñ Mahmoudan commencé nekk ci wetam ku ku ne laa ku ne gum masa yarut ci njaboot gi man nga wax ci ci suñu iblaat ndax mësta génn kër gi mukk te àndut ak kenn ko topp ci gannaawam te dawut toog bés ba bés ba diir yi te demul ci suñu iblaat kon loola euh, xam-xam bu bari mën na jaa génne xam naa bu wér ne maanaam bés ba bés ba diir yi te suñu iblaat nekk ci dëkk bi te gisu ko musuma ko fàttaliku te euh, euh, kenn laa ca njaboot gi nekkoon ci wetam di ko di doxee loola kon la nga xam ne moom la séq ak euh, sëñ Mahamadan loolee moom la séq ak jaboot sëñ Mata Binta gépp euh, ni nga tudde woon waajur yi kaw kenn ku ne ñu ne diwa ngi nii doomi diw diw moomee toog lam séq ak bu euh, buñ toogoon mën naa nekk waxtaan woo xam dana doy sëkk ci kaw ñu xam ne kon ndekk sëñ Blaat li doon def defu ci kenn képp waaye ñëpp la seqaloon nii ko sëñ Cheikh Matar waxe ci kaw Euh, euh, nam doon jëfe ak nam doon waxe ak njaboot gi am na ay firnde yu baree bari yoo xam ne mi ngi ci biir noonu mu wax ci toobeelal nam siq ak mag ña euh, sëñ Seex junj na ko mënee su koo lim mbooloo lañ bu dikkee tuwaatam noonu la noonu la ñuy demee ci biir nam doon tëyee mbooloo ma maa ngi ci fàttali ko benn xisa boo xam ne Eh, eh, amoon na eh, ci kër ca Touba Touba Belal dañ ma ko nettali nag fekkee wu ma ko waaye ci biir nettali bu wér la sëñ Ablaat dafa toog ci biir kër gi sëñ Mahamadan nekk ak mag mag ñam nekkaloon bi mu nekkee njaboot mag ñi ba mu yàgg am ci ku ne man de waaru naa sëñ Mahamadan ak ñam nekkal ne xon mu ne li ma waar mooy nii ngi si Ablaat tudde téye ci kër gi nga xam mën nañoo bind ay kamil mën nañoo tëj ay ay xur mën nañ mën nañ ba ju bari jaay ndax borom mbooloo lañ waaw mu tëy ñu ñu ne képp daal te mel ne ay ay bëy jàkkaarloo ma kenn kenn moo laaj laaj boobu hmm, sëñ ma dan daal ne teg ab diggante daal ne ko sëñ bi bu ñu tëyee rek tëyewu nan waaw sëñ bi bu ñu tëyee rek dafa ñu war a tëye waaw fa mu waxee kàddu ko sëñ Iblaat yónni ndaw ana sëñ Mahamadan kaay wuyu sëñ Iblaat ba mu dikkee mu ne ko dama lay bëgg a yeewi waaye di la di la di la wax tuuti ci li ma li ma leen téye fii jotaay yi waaw di wax leen tuuti ci li ma leen téye jotaay yi lam ne daal ko li ma lay wax ci li ma leen téye daa am bokk yoo xam ne dañuy dikk bëgg a gis sama jëmm ji waaw te buñ dikkee duñ ma mën a gis ci saasa te buñ ma gis bu ñu gis seen jëmm ji danañ ko doyaloo ba bañ ma agsi ci man waaw daal ne ko loolee la cay firnde alaaj ji njuga ke ba ñëwoon na am adee ñu ma bëggoon jox am lu ca manqué loo xam ne maa ko warlu ndax waxtaan yooyu ngeen waxtaan ci bunt ba moom ci la ci ko dagg joxe ko kon loolee ci lu si iblaat def ci diggante ki lool loolee la loolee ci la kon eh, si iblaat li nga xamee ne moom la doon jëf ci diggante comme gis ci njaboot gi wala comme gis ci yeneen njaboot ndax lii nga wax ci diggante eh, eh, ñim dencal soxna loolu bu ñu ko doon lim ci yoonu murid yaakaar naa baas ba baas baas bu oto doon mën a nettali oto baa ko mën a nettali waaw bu oto doon mën a nettali waaw eh, barke dem rek maa ngi waxtaan suñu seex mi ba ne ko sëñ Abdoulaye li gën a li gën a eh, nekk ci aw doxinam mooy njabootu Sëriñ Tuubaa gi da ko gënal njabootu boppam waaw boo xoolee lim jëf ci ci ci lim seqal waa Sëriñ Tuubaa daw ko def ci doom boppam waaw lool loolee ku xool da nga gis xam ne maanaam li mu doon liggéey eh, li ko gën a jege sax day da ciy doon daw waaw daa am lu mu doon daw loo xam ne day mel ne bu bu ca laalee day mel ne boppam lay liggéeyal ndax xamoon na ne doon boppam yii sa sëriñ Tuubaa waaye maanaam euh, euh, jeex gi da ko gënaloon mu di ko xool ci euh, ñi ko gën a sori kon ci laat ay ay jëfam lii suñ seex wax lu ne def na ko ci ci kër gi tuddin tuddandoo yi ci koñ bi may su ko lim waaye buñ dee xool ci kaw li nga xam ne mooy lépp man mii di wax ak yéen moom jëbal kon jur na jébal ko tuddal na ko doom euh, fab na lu ne jox ko fab na doom boppam jox ko ju jigéen waaw fab na doom boppam jigéen jox na iblaat kon maanaam lu ñuy jëf ci ci jëf ci ne siq ko si iblaat ci wet googa waaw dama ne doon junj rek ngir xam ne euh, am na ci yoo xam ne mëneewu ma ko man tam waaye nag euh, ndigal daa xam ne xam ne mën koo ñàkk ci ci wax kon nag tawakkal waaw maa ngi jégluwaat baax a baax barakallahu fikum jëf sëñ Modou Mokhtar ci kàddu yu am solo yi nga teg ci kàddu yi sëriñ Cheikh waaw am na solo lool ndax ëppoon naa bañ a teg ndax ak mottali la loolu lépp day gën a firndeel rek li sëñ Xalifa doon wax ak li sëñ bi doon wax eh, ci taxawaay yi nga xam ne eh, sëñ Abdou amoon na ko seqoon na ko ak seeni wayjur yi kon loolu moom ñu ngi leen ci eh, ndokkeelaat bu baax a baax a baax lii nga wax itam ci téye bi mu daan téye nit ñi maanaam ni ma ko dégg ci yow it man laa ko dégg ci yeneen kilifa kon nga xam ne loolu rek lu wér la woon. bëggoon ñi nga xam ne saa dañuy ñëw te duñu mën agsi ci moom waaye nag bu ñu ñëwee nañ yem ci ñoo xamante ne bii danañ fees dell sëñ Tuubaa ba euh, du du du du du du ñu yokkat loolu moo taxoon mu daan te kilifa yooyu euh, ñoom it ñu mate ko macha allah ah, xanaa kon daanaka euh, dañuy joxaat kàddu gi rek sëñ xalifa ci li nga xam ne war na koo mottali. su defee si Abdou Lahad tëj. Euh, abdulaat man wax abdulaat loo wala ma abdulaat jaxate euh, jërëjëfati <coughs> kàddu yi nga wax doy na sëkk ni nga waxe doy na sëkk euh, ni ma la waxoon su Seex Moxtaar waxee mu doy tubarkal barkala li wax mooy li wér jëm ji ci tegu di Moodu Moxtaar li mu wax abdulaat nee na noonu la ko dégg man mii bokk naa ci li ma doon bëgg wax moom moo moo dafa wax am ci boo xam ne moom laa bëggoon a tëjee waaw man di la xamal ne Abdoulaye ba tey euh, fii su fekkoon ne tàmbale Cheikh Mokhtar mi ba ci Mourtala mais kenn ko na sa bàyyi seq naa suñu loo xam ne mm, mënu ko wax lépp lépp si say amidun ah dem na ba jox ko mm, xasay euh, wala fa la suñu bay jaxate jox ko moo ne ko na nga ko jël anak jigit ngir alxuraan ñu bind ah jëm ji nga xam ne sëñ bi ci ñi am laa doom ci baayam ñi ñi si tuddee sëñ am laa doom it lu mu ci doon wax ndax dafa dund sëñ sëñ Mahmoudan dafa dund suñ Mahmoudan ab diir ci kër sëñ am laa daa ànd ak moom daa ànd ak moom ak ñaan ñaan ba ci maamoor bi ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoom laa bokk ñoom ñëpp ànd nañu sëñ am laa sëñ am laa li nga wax léegi da nga am loola ci eh, ci suñu ci jàmm ji ak jàmm ni mu nekkoon jamono ni mu dëkkoon ci jamono ak lu mu nekk jamono xam nga suñu ablaat dundam gépp jàmm la xilaafam gépp jàmm la jàmm la ndox jàmm la bëggoon lu mu def rek jàmm la bëgg ba ba ba ndax li tax mu jàmm la bëgg suñu ablaat saa su dégg rek su ku ko gone gën a tuut sax su dégg kàddu déglu suñu ablaat dégg kàddu jàmm la su déglu kaddu ay discours kaddu suñu abdoulaye la ñëpp la déglu kon suñu abdoulaye léppam jàmmaloon xilaafam dem yëpp jàmmaloon am na lu ma ci xam sax ndax ci ndax jàmm soo ko nettalee day niru leneen waaye jàmm rek la euh, te wax na sëñ ma lu ma tax sama baay ne ko man loo xaa xamoon yaa ma njëkk réer ab gat nu toog ngan na ko sëñ sëñ ma lu ma tax ne ko yaa ma njëkk ab gàtt waaw gàtt waaw waaw fii ci suura gi suura gi ndax sëñ Mame Lo Maxtaar fii la nekkoon sama baay fii la nekkoon ki ma mag si Maxtaar sama mag fii la juddoo kako mag fii la judo ah mu wax ko loolee ne ko xanaa xamante loole jàmm rek doon doon fàttaliku démb dafa fàttiwu démb moo tax mu wax ko loolee kon nag sëñ Abdou Lahad léppam loon tey loole moom la doon def loole jàmm ji nga wax li mu bëgg sëñ Abdou la mu bëggoon moom la bëgg moom la doon doxee moom la doon moom la doon waxee moom la bëgg kilifa yam daa dajale ca Tuubaa la hmm, bëgg ko fa ñëw rek nii ko nii kuy wax rek ku fa ñëw rek jàng ci ñoom jàng ci ñoom kon nag eh, yal na ko yàlla fayal ci barkeb Sëriñ Tuubaa eh, na ngeen xam daal fii daal kër Sëriñ Abdou Lahad eh, ci kër Sëriñ Abdou Lahad yi la bokk ci la bokk jëmm joo xam ne man mii yónni na ba tey yónni na ma tey yónni na ma day am man maa cee dem ah kii la Cheikh Makhtar wax léegi ker ba mu fa demee dafa demoon ma baayam ba may ñëw demee fekku ma bàyyi ma ñëw ne ko de nekku fa mu ne ba a ah, xalifa wax nga ay de ma ne ko kon nag maa ngi tuub <laughs> waaw daal di jàpp sama loxo daal di mën a demal ma Mamor ma daal di woo Mamor jàpp ji loxo am indi mu ne mu ne waaw ak ça nii de moo gën muy kii nekk ci kër gi di muslim Mbakke mu daal ko wax lu ko wax mu ànd ak man ñu dem dafa ñu def ma andi ko ñu andi ko kon nag jàmm ji sa yëpp daal kër gi kërama ma ne jëmmal ko fi lu ne jëmmal na ko ci kër gi nag muy sama kër baay di kër sëñ Mahmoudan jëm jëmmal na fi lu baax lu ne fi la kon nag yàlla ko yàlla fayal ci barke Sëriñ Tuubaa kon na jërë ngeen jëf euh, li moom jëru di wax ndax nun euh, wax ci lañu am daat suñ ko doon wax ba déwén euh, daanaka duñ ko dañuy baamu rek ndax mënu wax gën a suñu ablaat yëpp mën nu ko wax noonu waaye dañ leen xam ne daal fii suñu ablaat daal def na fi loo xam ne loo xam ne kenn mënu ko wax kenn mënu ko wax daal lépp kenn mënu ko wax lépp waaw jërëjëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf sëñ Abdou Lahad Diakhaté noo ngi dellu di leen sant am na du xam sax man placé naa ngir sant leen wala ma xam fan ngay féete ci ñaari wàll yi tey waaye di sant bu baax baax ci tànk yi ngeen dox fii rafetoon nañ njort ci ne bu ngeen fi dikkee da ngeen fi taataane lu am njariñ lu amal njariñ lu amal njariñ ñi koy déglu jàppoon naa ni li fi nekk lépp it mënee ko wax li fi nekk yëpp mënee su ko wax waaye kon liñ fi jot a dégg ci ay kàddu mu jóge ci suñ kilifa yu baax yi daa mat sëkk ba kenn mënu ci dolli dara ay sëñ xalifa mi ubbi ba noppi tëj Cheikh Mokhtar bi nga xam ne moom moo doon daalal waxtaan wi tey ngir relation bi ñëpp xam diggante sëñ Mahmoudan ak sëñ Abdoulahad ndax yàgg gi ñu yàgg ginnaaw ginnaaw te ñu seq ay mbir yoo xam ne yaakaar naa am na lu ci feeñ ci jataay bi sëñ Mouhamadou Makhtar it wax dëgg kàddoom gi am na solo lool li tënk wax ji rek mooy day mel ni sëñ Mahmoudan moo nu taxoon a jóg tey ci jataay bi waaye feeñ na ci wax ji ne sëñ Abdou njaboot sëñ Makhtar gépp la seqal njaboot sëñ Makhtar gépp la seqal kenn par kenn yaakaar naa ne kenn kuñ ci beroon it wax lam seq ak moom danañ ci yëg li ñu yëg ci diggam ak sëñ Mahmoudan diggam ak sëñ Mahmoudan nag daa daa yàgg te lépp nekk ci biiru xilaafa te mu mujj jataay bi ndax bu dee sëñ Modou Lo Mokhtar euh, li mu ci ak xilaaf ak sëñ Abdou Lahad yàggut sëñ Abdou Khadir mi nga xam ne moo ko fi njëkk a tuddee doom fekkewut ak xilaafaam su ko defee ñeneen ñiit kenn ku nekk lam seq ak yow kon daal jataay bi eh, di ci doy waar rek mooy li nekk ci xel yëpp mënta génn waaye jàpp naan li ngeen wax rek te tëjee woon nga jataay mooy al ishaara teg fii diñ jot junj ci ay xalaat xëy na mënees na cee jàppandi eh, gën koo yaatal nag ci yeneen jataay incha allah di xam le ne ginnaaw li suñu xalif wax rek fii moom benn ëtt la ci ëtti suñu blaadi jàpp naa ne lii benn yoon rek la ay yoonu yoon mën naa amaat liñ fi wax it mënees na ko gën a détaillé ci yeneen jataay incha allah taala na kon di am mbégte lool nag ci tànk yi ñaan suñ borom it liñ fi taataan lépp mu nekk njariñ ñeel xeet wépp rawatina kàddu yi jàmm ji nga xam ne moom la réew mi yëpp te eh, rod na ci kàddu yi suñ Cheikh Mokhtar waaye rod na ci kàddu yi suñ Xalifa luy wane ne suñ Abdou Lahad loolu ko ma la ci la daan dox ci biir njaboot gi waaye ci la daan dox ci lislaam ji Ah, ndax misaalum sëñ Cheikh Gaynde Fatma mi ci biir njaboot gi la te loolu ñëpp xam ne firnde la ci sëñ blaat waaye misaalum sëñ Abdou mi it nag ci biir lislaam ji la ci loolu it mel na ne ab taxawaayam la yaakaar naa ne maa ngi ma ti fan yi ay ay témoignages yu am solo yoo xam ne maa ngi koy dégg ci yeneen kilifa yoo xam ne bokkuñ ci woon waaye mu am solo lool ci ay taxawaayam yoo xam ne da ko daan taxawee ci biir réew mi ci biir lislaam te kenn mosu koo yëg nag ñoo ñoo dem ba koy wax comme ni ñu koy waxee nii rek waaye nag kenn mësu ko yëg kon loolu rek day sakk ci firnde ci taxawaay yu am yi solo xanaa di leen santaat baax di ñaan suñ borom yàggal taxawaay yi ngeen yàgg taxawel yi di siyaar sëñ siid yi di ko ndokkeel te ñaan suñ borom mu yàggal ab taxawaayam eh, taxawaay liggéey yi nga xam ne moom la sumbal waajuram yi borom defal ko ci ndam lu kaw njortam jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa